tabaarakallaahu fas yéene leen dëgtal li nga xam ne mooy xew ci gàmm gi la ko dalee ca fanu burdiya ba keroog gàmm gi di jeex incha allahu rabbi ginnaaw loolu ñu ngi ànd ak suñu kilifa suñu xarit elhaaj loo tabaarakallaahu mi nga xam ne moo ci bopp di ku ñàkk ki ñaan safoo ñëpp xajoo ñëpp tabaarakallaahu naka noonu itam ànd ak suñu caméraman yi ku ci mel sëriñ Balla tabaarakallaahu sëriñ Saalih Mbakke naka noonu itam ànd ki nga xamante ne mooy soxna awa leen tabaarakallaahu ak itam yaa sayda moom itam wàcc ci terrain bi ànd ñun fas yéene ànd ñun li nga xamante ne mooy liggéey bi tabaarakallaahu ginnaaw loolu dañu fekk si ki nga xam ne mooy suñu papa suñu xarit tabaarakallaahu di ko siiw di ko jàmbaar rawatina nag ci ëttu Cheikh Alhaaji Malick tabaarakallaahu rawatina ci tariqa Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sarif al Maktoum naka noonu ñu ngi koy nuyu di ko ziar incha allahu rabbi dinañ ko dëgtal ay kàddu léegi incha allah waaye balaa loolu ku nekk xam na ne moom tabarakallahu jàmbaar la ci diine ji la ci tariqa bi ni ñu leen ko waxee waaye itam di nekk koo xamante ne taalibe sëriñ Babacar Sylla di taalibe si alxaaji Mansour borom daara tabaarakallaahu sëriñ Babacar si nga xam ne moo daan wax ne bala ngaa xam sopp sëriñ Babacar lu muy jariñ nga dee ba ñu la ci ñetti fan bàmmeel ci ngay door a xam sopp sëriñ Babacar lu muy jariñ naka noonu itam sëriñ Babacar si moom nga xam ne moo daan wax naan inna rabbi yu'tini ma atlubu xatt li annani ma asaytu rabbi xattun tabaarakallaahu ci réew mu mel ni mu sañ a wax ne lu ñaan yàlla subhaanahu wa ki nga xamante ne mooy suñu borom daan wax itam musuma fecc kóllëre man sëriñ Babacar fecc kóllëre googu moo taxoon mësul sol benn mbaxana lu dul bu ñuul boobu donte ne daanañ ko andil ay mbaxana yu bëri tabarakallah waaye boo waxee mu ne cey kóllëre cey kóllëre cey kóllëre noonu la ko ba keroog muy génn àddina tabarakallah mu mel ni ñu leen ko waxee woon sànq ci suñu ubbi ñu ngi suñu papa suñu xarit suñu wëllëre di koo xam ne ni ñu leen waxee sànq ku jàmbaar la tabarakallah di def ci diine ju la am solo waaye itam yëmalu tabaarakallaahu ba fi ñu waxee ni yéen moom moo dalal ci fi nga xam ne mooy këram ak itam la fa ñëw ci teraanga lépp tabaarakallaahu moo ko ànd ak ñun te itam bu ko neexoon def ko ni ko nit ñi di defee waaye tabaarakallaahu lépp rek xam na ne man amila saalihan fa nafsihi wa man asaa fa alayha wa maa rabbuka bi dallaamin la abid bi ci des ti mooy fa man yaamal mitqaala darratin xayri yara wa man yaamal mitqaala darratin charri yara góor gi ñu ngi lay nuyu tabaarakallaahu maa ngi leen di baax baax baax ginnaaw ba la nuyoo ziar la muudu xulle tabaarakallaahu xëy na maa ngi lay door gis waaye siiw lu waral muudu xulle siiw gi mu siiw wa lepp ginnaaw buñ ñu sant yàlla julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam euh dañuy santat yalla diko ko sant fu ñu ñun yëgu ni sax dañuy siiw dañuy nak bu dé dañuy siiw dañuy fekk rek ñu def ñu siiw ci def lu baax parce que ci loolu lañ juddu ci lañ maggé ci lañu yaré motax façon bobu lañuy def té façon bobu aussi li war gënal ñuy siiw moy amuñu ci limite dañ koy def té duñ ko def ci ay mbokk wala yeen dañ ko def te yàlla rek tax parce que boy def fi sabilillah woro tànn sa mbokk rek di ko beral bàyyi keneen parce que bu doon say mbokk rek sa liggéey na mu war a doxee doxee noonu nit ñi la yàlla booleel ñooy doxul sa liggéey kon nag li ngay am yàlla lim mu dessiné pour jox la daf lay essayé rek ba xam yow nan ngay yore lim la dénk waaye yëmul ci yow rek bu ko defee bu la ko joxee nag nga boole ko bokk doomu aadama te yàlla kese tax su ko defee yàlla man la yokkaat tey nag dañuy jublu ci guddi gi nga xam ne genn rek la muy guddi Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa la goo xamante fii ngeen toog tey yàlla xam na ne Seydou Mouhamadou Mansour ñëw na fi toog ak man ni ma dinaa la wax secret guddi yonent sallallahu alayhi wasallam man ko si jërëjëf si man ma xam nga lu ma la yëgal boo koo xam mu bëgg mu yokk bi si yonent bi bu agsee muy gàmm bi na fas yéene donte am na dooleem benn pitax na ko jël terale ko waaye yàlla boo xamante ne moom donte xamu ko bu ko lekkee julli jàpp rukko ñu jéggalees na la parce que Seydou Mouhamadou Mansour naa ko fekk moom ko fii saal bii ba ma ñamalee gudd yooyu ba léegi nag ñun ñu continuer di ko def ñu ngi commencé woon ci ay ñaari nag ay ñett nag waaye dañuy ñaan yàlla dem ba dootuñu jéem a wax sax liñ ci def ndax loo def yàlla xam na nga bàyyi yàlla waaye loo def ci nit ñi yàlla yokkal la ko yàlla nag dafa bind te yemalewul tey boo demee jumaa yonent sallallahu alayhi gis nga boo fa jullee lan lay fay ñaata rakkaa nga am nga gis nga ko nga dem Medina nga dem jullee fa Kaaba ga rakkaaya gis nga lam lay fay yàlla moo bind musu yemale benn te du benn yoon mais nag kenn ku nekk na xam ne doomu aadama rek la te ku ñu bàyyi doo dem te kenn ku nekk loo am lu nekk na ko sant yàlla te gërëm nit ñi tax nga am loolu ndax bu dul nit ñi doo mën am loolu ginnaaw yàlla kon nit ki war na wàcc boppam fii réew la moo xamante ni loo fi am lu nekk waaye am na lu këpp fuuf bàyyi ko fi dem yoram suuf jël na ko tey te xamoo nu mu mujj tey kon nañu sant yàlla delloo suñu bopp ci yàlla nañuy jàppalante te ragal yàlla jaamu yàlla mais tey day bis boo xamante ni bis bu yomb wax la ci Tiwaawan day bis boo xamante nii sëriñ Abdou Aziz Alamine yàlla na yàlla yërëm ko yokk ay leeram ndaxte sëriñ Abdou Aziz dafa nekk ci fukki at ak nangam baayam Babacar Sy nekk fi ak jamonoy tubaab yi mu nekk moom nekk moom lu mu def ni ko du waxal muy doxal ba mu dem jox sëriñ Abdou Aziz da baax mu ñëw mu ne ko la sa bàyyi defoon mooy sama sëriñ duma ci bàyyi dara donte ñoo bokk bàyyi mooy mooy sama sëriñ doxalal muy doxal ba mu dem sëñ Mansour ne ko la woon fa na woon bàyyi ko moom douze ans mu doxal Serigne Seex ni man li ma yor ci jamono doy na ma sëkk li sama tegoon du ko teg du ma sax wax doxalal muy dox ba mu dem sëñ Abdou dem mooy borom xilaafa gi nga xam ne dama ne lim gàddu woon ku ne jaar na fi sëñ Mansour jaar na fi yor ay motaaram di jàll yor limousine yi di jàll ba gaa ñu wax ne waaw kii mooy kan mu ne mooy Babacar Sy dooñu Babacar Sy sëñ Mansour ni bu leen jéemee réer laal leen ku fekkul jamono sama jamono bàyyi ca jamono tubaab yi lañ ko doon escorte man dañ ma escorte man Seydi ma Mansour xalifa général bi moo ñëw jël par cent personnes du yóbbu màkk moo ñëw jël cent soixante personnes du yóbbu du yóbbu makk moom Seydou Mouhamadou Mansour moom la ñu naan borom dërëm yi borom daara yi borom daraja ji kooku yàllaa ko jagleel Babacar see ko jël ci leeru Cheikh Seydi Hadji Malick tëmb ko ak moom jox ko Serigne Abdou Aziz nag teel ko xam trop nekk ci am nekk service am nekk militaire am di ko liggéeyal ba mu daan ko wax sama rakk bi sëcc mën rek te te du ma dóor ci ginnaaw te xalaatu mu doon muy Abdou Aziz Al moo tax mu ne Serigne Abdou Aziz am na ñaanu baayam li mu amoon kenn amu ko ci xalifa yi am na ñaanu Babacar si xale xilaafa gi am ñaanu Sëñ Abdou Aziz ci xilaafa gi am ñaanu Seydi Mouhamadou Mansour am ñaanu Serigne seex na Ahmed Tidiane moo tax mu dem li ñuy jooy mooy li muy li mu yàggul ci xilaafa gi waaye gis nga seesu Babacar si toujours dama wax ne ci woonu dafa toog Serigne Baye si Mansour mi toog mooy doomi Alaaji Mansour mu Serigne mu mu Cheikh Seydi marik Malick cóone du toog fii cóone du musul toog ci dëkk bi fii kon nag dañuy sant yàlla baax a baax di gërëm ñi ñëw Tiwaawan képp ku fi ñëw te bëggoon a ñëw te mënoo ñëw ak ku ñëw ku nekk yàlla na fi yàlla doxe fase aajo yi biir ak biti saa bu baat nan yàlla man na ko te ñu ngi yaakaar guddik ñaan la tey nag guddi gi képp ku lekk lekkal yam na nga fas yéen a toog di jàkkaarloo sunu borom ndax ñu ngi waajal guddi goo xamante ni ah, Cheikh Seydi Hadji Mari bu ngeen xamoon ni ko malaaka yi préparé guddi yonent bi wallahi du ngeen sol dàll kuy jigéen sa karaw kenn du ko gis di nga muur sa bopp parce que am na lu xew am na lu xew te Alaaji Malick ma nga dëkk juddoo gaaya ñëw ci Tiwaan fi nga xam ne fi doon jaay sàngara si yëpp di naan mu ñëw daari fii wax li mu wax yàlla yàlla nangul ko fi mu ñaan lu nangu moo tax réew mi dañoo war a xam lan moo nangu lan moo nangu Seydi Cheikh Seydi Hadji Malick li mu doon def nangul nañ ko Cheikh Seydi Hadji Malick li mu am na ko Cheikh Seydi Hadji Malick li mu yaakaaroon lépp yàlla defal na ko fii ci Tiwaan ñii naan dem nañu jàkka yaa ngi dem mu jël tarixa Cheikh di Tidiane def ko central ci ci Tiwaan mujj na dem ba yàgg mu ne hey ku doon dem siyaar yonent bi may na la demal waaye pour xam yonent bi ñëwal Tiwaawan ma wax la kenn moo Rasulullah mu ne ku bëgg a xam Cheikh Ahmed Tidiane ma juddu Algérie ñëw eggalee ci Maroc ma ne ku ko ku koy siyaar demal waaye boo paree ñëwal fii am na lu ma jox téye naa ko te ko jàng ba salaatu faati ñëw. am na benn waay dafa toog ci Tiwaawan Cheikh Cheikh Seydi Hadji Mari ne ko man de dama laa soxla yitte woo la woon loolu mu jox ko néeg mu toog ca ba mu toog ay fan ay fan mu toog 10 jours wax ko dara. mu toogaat 4 jours muy 14 wax ko dara mu toogaat benn fan Serigne Touba jóge Mbàkke Kajoor jaar fi yor ay fas ak délégation Alaaji Maari doon jàngale dem gàttandu ko akuraat ko waxanteeg moom mu dem. waa ju toog ca néegam mu ni man de damay yaakaar ni eh, man erreur tardement yi ma am métti na doon ndax damay ñëw ba fii di wax Cheikh Seydi Alaaji Maari soxla naa la te gis nga Serigne Touba ngi ñëw mu daal koy yéeyu mu dem. mu dem toog ca néegam mu yónnee ndaw ni taalibe wool ma diw nee ko na mu ñëw mu ne ko soo gàttee xel da nga dama la respecté wul mais kii bokkuloon li ngeen dox yow da ngaa bëggoon a gis seex na mi tijaan te day ñëw barke bi damay wér da ba yàgg te seex ci kurus gi lay dox ma gëmmentu kurus gi war da seex def aare moo ko tardeel mais demal nga moo toog ci ginnaaw suba ko 19 som sur ni ko dugal ci néeg bee koo fekk wax ko soxla mu ni waay kii lii damay wax nii mu dugg fekk fa naar bu xoox borom bët ya borom kanam ga derete yonante sallallahu alayhi wasallam leer di ko bëgg a lakk kooku mooy seex na Ahmed Tidiane seex Seydi Hadji Mari fu ma ko soxlaa fekk sénéwante waan kooku moo moo doo liggéey loolu moom mën ni yoon yëpp baax nañu waaye gis nga fi ma téye ku ci téye doo lakk fi ma téye ku ci téye ñu jégg la fi ma téye ku ci téye da nga am sens muy salaatul fatiha boo xamante ni euh, fu waay jàll bëgg jaar ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da nga jaar allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatiri lima axlu wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqq bil haqq wal haadi ila siraatika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaari hasim ana lu xew ana sukuraat yu metti toog sa mbokk sukuraat nga bëgg ko téye ñu koy yeew bëgg mu faatu da ngay bëgg mu sedd guy mais léegi lu xew julli ba yàgg faatu sedd guy toggaañ faatu dugg ci faatu dugg ci avion faatu xëy sa bureau faatu loolu mooy xew kenn yëkkatu ko salaatu faate dàq na lépp mu jàll moo tax mu ne gaañi kon daal gaañi gaañaa ngi yëf yaa ngi yéen a ngi nii dara daraja nag dara la ci nekk daraja bu la jëlul dara dara joojo doo ci am dara Seydi Mouhamadou Mansour waxam la moo ko waxoon te sëñ Babacar si amul ku du wàllu yi moom benn xarit Ousmane Sarr mu ñëw ma yóbbu ko Serigne Abdou doon laajte ndigal sansé saalu Serigne Babacar Sy Serigne Abdou ni ma man de saal boobu aw oh, moom ma ko du ma ci joxe ndigal boo ko defaree defaru tey ak suba Babacar Sy ko moom man man gardien laa fi ma defar saal ba ca déwén sa Ousmane ne ma na dem ñu egg ma sansé waat salon Ousmane jël benn ma jënd benn yàgg na mu dem di dem ñu bokk saal bi di ko liggéey Serigne Abdou mu ni wallaahi Babacar Sy dina leen defar tey ak suba te ku nekk xam na ni ñun Babacar Sy fa même teg nañ ñu loxo man xam naa loolu yàlla dogal mais teg nañu loxo suñuy xarit lañu dañuy seet si dañuy demanteeg ñoom dañuy jëfanteeg ñoom dañuy sonn ci ñoom te duñ ko ñéblu dañuy senn ci ñoom te yàlla kese tax moo tax ñu bàyyi ñu xel teg ñu loxo te Babacar Sy nee sama njaboot ko ko bàyyi xel bàyyi naa la xel kon ñu sant yàlla kër gi këru Cheikh Seydi Hadji Malick la këru yonent bi sallallahu alayhi wasallam la këru tariixa yi la kon ñu ngi ciy sant yàlla di wax képp ku duggoon ci kër gi képp ku ñëwoon fii wallaahi tallaahi yàlla yàlla fa si jërëjëf Serigne Modou Khoule lañ dalal ñu ko tabaarakallaahu mu mel da nga wax ci salaatul fatixi boo xoolee sëriñ Aadi Touré nga xam ne mu xaddam loon Cheikh Alhaaj Malick daf ci wax lu am solo nee na salaatul fatixi kenn wérdul lu mel ni ki moom màggal ko loo mosamante bul ko jaaxaane waaye ku wax sëriñ Moodu Xule wax sëriñ Mansour borom daré lu waral sa diggante ak sëriñ Mansour waaw sëriñ Mansour dafa ànd ak sama ndijaay ku bokk sama yaan rek bàyyi sama maam ki jur sama yaay jël ko yor ko jël ko jox ko sëriñ Babacar si turandoom sama ki bokk sama yaan rek bàyyi mooy Alaaji Mbay Jóob mu jël ko jox ko mbay Babacar si jël ko ni Mansour ki yéen a maas yi dénk naa la ko sama maam mu ngi dëkk Talla Diallo ki jël sama yaay sama maam daraan bay tool ca dakaar ca Talla Diallo jël gerte ko wétt ko dugal ko saxar andi ko Babacar si Babacar si ne gerte yi ne bari na bokkul waaye ki nga xam ne mooy Ibrahima Diop bàyyee Dakar andi fii man rek maa mën a am loolu mu jël ko Seydou maa Mansour nag may dem ci moom ba 1984 man dama daan dawal car rapide ma dem ci moom ni ko dama bëgg su may ñëw sa tool damay fay vraiment versement yi bëgg naa sama oto bopp 1984 boobu fukki at amaguma 20 ans yu mat dama yokkoon sama at mu ne waaw léegi xam nga nu ñuy def ban at la nekk ñun ko 1984 mu ne 85 amal ñaari kaar billaahi wallaahi tallaahi 85 maam ñaari kaar ñëw mu ne boo yokkee ma yokkaat ma yokk ba doyal ca loola ne ko man lii laa bëgg liggéey léegi mun ma euh, damay dañ ma jox liggéey Kër Mbaye Fall may defar suufu mbaaw yi mun ma tibbal suuf jox ma tibb suuf jox mun a demal liggéey liggéey ci ba doyal te teg naa la tëngi te bu fa jógee te ñaar laa la wax bul tëréyande bu fen ñaar yi bu ko def benn yoon loo bëgg di nga ko am sa liggéey Seydi Mouhamadou Mansour moom dafa loolu di jël ay yéreem yi muy gàmmoo di ma ko jox mu di wëlis mu ñëw fii may wax ak yow tey ñëw sama bureau ay yoon ñëw sama kër Dakar fu ma ko fekk ma jar fu ma ko fekk dugg wax ak moom mu di ma waxe secret di ma doy secret ba may defal ay secret ba koy gars yi di ci man di jariñoo loolu Serigne Mansour ma defal loolu te du ko werante benn yoon moo jël sama loxo teg ko ci Abdoul fekk dama am 4-4 ne ko ñaanal ma ci 4-4 bi mu ne ma ah 4-4 bi day wax dëgg yàlla dama bëgg nga may ma ko ma may ko ko mu ne ma jël naa ko waaye mayal ma Abdou Assi oto ma may Abdou Assi oto defe naa ñi ñu ko bokk mu ne leen su ngeen demee neer moo du xule si bis bi del see te amul oto yu bari na bàyyi Abdou Assi su suba sama xëy am ñeenti oto ma may ko benn oto ba ñu eggee ca moom mu ne xam naa xullee leen yónni de sama bàyyi Babacar Si wax na ma lépp kooku wàllu kamaan mooy wax moom kooku gis ci leer yi di gis ci jamono yi di gis ci ndox mi muy Abdoul Aziz di dox mission boo xam ne bii laay wallaay ba mu fi jógee amul woon coow te liggéeyam bari woon na di def lu nekk ci réew mi di yor dépasse yi kan moo fi def dépasse yu 2 millions 1 million 500 Abdoul Aziz Al Amine Abdou Aziz Al mii ne yor loolu de dépasse 2 millions 1 million 500 par jour bu nekk te ken du yok te du yuuxu ben yoon te du wax ben yoon te du wonk ben yoon te day liggey goudi ak bëccëg te du noppalu ben yoon lu am dox ko service motax bim bi man ah khalife yëpp dem nañu waaye xalifa bii nee ko remplacé de xalifa bi dem tay wallahi bu demee ay gor dañu taxaw yeddu taxaw dañu joy xol yi fees na dell boo xoolee ci waxinam ndaysan bëri sax mi ngi xaw di taa waaye bu ko defé après yoy nga xam ne Mansour ki na la yow tamit nga kii ñi incha rabbi sa digganteeg sëriñ Abdou Aziz Al amin waaw Abdou Aziz Alamine dama am daara internat Serigne Mansour tàgg ko mu jox ma ndigal ma tudd ko daara ji mu ñëw inauguré ko mu doon ne naa la wàllu yu boo xam ne ku ko jege defaru nga Abdou Aziz Alamine euh, wax naa ko ca saarum ni ko sëriñ bi réew mi dafa doy waar dafa am benn gàmmu Tiwaawan wallaahi tallaahi wallaahi benn waay ñëw fii ni ma ñun de dañoo tooñoon si Abdou Aziz ñeent la ñu waaye ñett ña dee nañu ci lu matul ñaar te maa ci des te man de moto ma mbëkk fii ban ñaw ko dama bëgg ñu dem ci Serigne Abdou mu mel ni bégg égal bóor la ñëw comme tey man ko day xadde dangay bàyyi bon gàmm ba pare ñu gàmm ñetti fan mu dem oto jaar ca bopp ba dañ ne woon sëriñ bi day da yàq tariixa bi ñu wax ko sëriñ Abdou wax ko mu ne ñooñu de pare nañu gis nga Abdou Aziz sëriñ du benn waaye toog na fii ci Tiwaawan daal di wax lu tegginawul mu dëkk mu ne kan la ñu ni diw mu dugg ci rodo ba mi ubbi rodo ba yër génnaat toog jël kurusam mi ngi ñu ne ko diw kurus na muy faat na seex naa météo faat na ko ba yàgg am naa caabi ji wax ak seex am naa lii wax ak seex jox na ko Babacar Si alaaji maa la ko joxe te sama baay Babacar Si jox na maa ngi ko yor sama loxo Abdou Si alami ndeysaan de ginnaaw loolu Serigne Modou Khoule moom naka la gisee gàmm nga xam ne dañuy joxante ay rendez fii ah dugg fii waxta whatsapp dugg fii fekk ma fii fekk ma fii léegi Serigne Modou Khoule naka la gisee gàmm ak bu doon conseil xale yooyu tey nga moom sëriñ Modou. xale yi yoo xamante ni rek maanaam ñu ñàkk kilifa ak réew mi réseaux sociaux yi dafa jaxasoo ba jaxase nit ñi waaye góor ñi du leen jaxase benn yoon ña ngay taxaw fan taxaw te nit day am kilifa tam am na yoo xamante ni fi mu ne euh, doy na waar jéggi na ab doy encore ci dëkk bi ñu ne waaye gàmm gi daal li ma ci mën a xam li ma ci mën a xam ci gàttal mooy ñun jël naa décision sensé ren ren damay sensé damay def doublage xam nga luy doublage dama bëgg suba fanweeri cin laa bëgga a togg ci mbedd mi ak tonub ceeb joxe ko ay gëléem ak nag togg ko jox ko bëgg bëgguma benn fepp solo ñi may toggal ñëpp ak ñii saru yëpp dama ne sans programme mooy bala maa mën a lekk na ceeb bépp jeex une tonne ceeb nañ ko togg mu jeex ci tiwaan tey bu déwénee ñuy defaat ñaari tonne ndax xam naa ne ki ki ñu koy defar mooy kan ndax xam naa ki ñu koy defal gëmmul nelawul <coughs> sunu borom tabaraka wa taala te moo jànn tànn ñëpp mu neex mu ne bi naw naa la yonent bi fal naa la yonent bi jël naa la mu ñaan abaab mu ñaan gis nga euh, al kii yonent Ibrahima xam nga am na jor bu tudd Saarata xam nga am na am na Ajara xam nga mbindaanam lu ñu jox ko ca la soq ko ba Ibrahima am doomam. Ismaayila benn néeg la leen boole lëndëm ñi dafay gàtt rek ma tënk noonu benn néeg la leen boole ki wan neen kii yor liir mu taal lamp kii ni ko tax nga taal mu génn bëgg a fay alaaji maari nee na mu da Ibrahima bëgg na fay bëgg na taal yàlla ni ko toxalal toxalal ko bees ki mu toxal ko ajara mu dem dox màkk tey mu doon jigéen ji muñ mocc ko ci àll ba <coughs> muy màkkaake xeeram la ca xew gis nga ko ba ndox ma jeexee mu daw safaak marwa di wuti ndox mun ta am ndox la ca xew xam ko ba mu bënn Maodo wax nañu ko mu bënn tànk ya ndox ma samsam di génn ñu naa ko sëm sëm doy na doy na mu jël ko muy teen bay dox ba ilaa yomal asar booba aba ali kii yonte yàlla ibrahima moo rëppeelu woon ñaante màkka ne yàlla <clears throat> li gën sax li gën sax moo ñaan gu màgg Maodo nee na dafay ñaan yàlla ban ko li sax ki gën ci nit ñi na juddoo ci xet wi li gën a gàtt mooy loolu jigéen liggéey loolu kon nag gàmm gi yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génnaat teeg alhamdulilahi rabil alamina berndeel nit ñi ñu ngi fas yéene jox nit ñu lekk ñu ngi koy fas yéene nag xalaatuñu ko mbokk ak kuñ bokkal wala kuñ xam ak kuñ xamal daañu jël lu mat ñett téeméeri bool jël ñu koy raxas bu ñu lekkee ñu yi kon daal maa ngi leen di gërëm yéen waaye Louison jërëjëf balaa ñu laa bàyyi sëriñ Mbow ñu ngi ñëwaat kanam xam nga da nga wax sànq wax bu am solo mooy xale yi nga xam ne dañuy ñëw ci barab yi tedd yi rawatina fi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi ci màggalee nga xamne mawdu mom lam ci wax tabaarakallaahu du jeex wa mawlidu bihi sharafun wa khairun fa fi ta'zim in jaahu sujuni ala azimu layla alwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharam udulu si haj mansur wa ko yumnun wa hubbun wa rahmun ma'dilun wa haya sabrun wa zurun saqal bis salam ha yooyu yeb tabaarakallaahu ñu wax ko waye serigne Maodo xam nga arab fay wax ne mbolo ni mu meuna nekke rahma non la meuna nekke summan qatilan bëri na mbooloo moo xam nit dana fa dem defaru ba faaw waye bëri na foofu nit dana fa dem yaqo ba faaw waye ginaaw loolu Euh, Serigne Modou Khoule boo xoolee xam na tey waa El Vision Média ñoom ñoo la ñëw pour wax waxtaan ak yow tabaarakallaahu léegi balaa ñu lay bàyyi dinañu la laaj sa relation ak waa El Vision Média lu ko waral. waaye ma euh, ñu yéen da ngeen di euh, ay xel yoo xam ne ñun nangoo liggéey lañu di daan seen doole di leeral la ma waxoon Youssou Ndour te talem boobu yàgg na mm-hmm. man ko nii ngeen di doxalee nii ngeen di doxalee vraiment di liggéey ci réew mi yàlla dinañ yokk ci kanam la ma waxoon Youssou Ndour yàgg na wax naa ko. jàll na te gis naa ci tànk ngeen jaar di liggéey di góorgóorlu di bañ a xeeb li ngeen di liggéey yàlla mi jàpp dana leen jàppale te dañ leen ñaanal te man dinaa jàng benn ñaan fii tey boo xamee ne bu ñu ko jàngee ku ko dégg sa fan dina gudd ku ko dégg saajo dina faju sa kàddu gu mujj waaw di sant yàlla di leen gërëm di xam ne seen tele bi euh, seen télévision euh, bi ngeen yore télévision yaa ngi ñëw ci ginnaaw incha allah yàlla na yàlla teg ci ay télévision yu bëri ci réew mi yàlla na yi ngeen jug ba ñëpp seen leen yàlla mën na ko ci guddi yonent bi laa ko ñaanal moo tax ma bëgg a jàng li may jàng rek dama am al tàng jiir ma bëgg koo tare rek gaañu ku ko dégg saajo faju gaañu ku ko dégg sa fan guddul loolu laay wax ndaxte Seydi Mouhamadou Mansour nee na xaw ma kande mais ku ko dégg aajoom faju xaw ma kande boo dégg boo ko euh, dégloo dem ci mbooloo benn waaye ni bërët ni kan mooy gudd fan tàllalal sa loxo ni man ca laay bokk ndax déggoon nga li ñu jàng dégg ko na jafe na yombul waaye dinaa ko dóor léegi mu gaaw incha allah loolu lañ tuddee xaas kon nag defal ñu li ñuy tuddee li nga xamante ne mooy xaas Serigne Modou Khoule ndeysaan mu mel ni ki waa El Vision leen ko waxee woon rek ngi fii ci Tiwaawoon nga xam ne moom la naar bu doon wax rek ndeysaan xale la yoxu jaawan zila bi Tiwaawoon تواون فيها اليمن للمتيامن ينقل تحمن فما طار فيها طائر متشائم ولكنها ذات الطيور الميامن سرج مودو قل لن يدالون دون وقت انا مملا اجي جامو غاك ريلاسيون سرج منصور اجيب تبارك الله أه، الفيجن ميديا ني لن كو واخي وون نيغي في تي تواون بور دغمل سوبي ليغا خمانتني موي خيو في تي تواون ان شاء الله ربي